jot naa dundu li nga xamante ni moom mooy événement mars passé mu nekkoon benn moment bu xawoon a difficile ci sénégalais yëpp du ci man kese mais ci ñëpp donc arrestation boobu nga xamante ni jotoon naa ko dund sant yàlla laa ciy def parce que arrêté wun ma ci lu bon def ma lu bon dan ma arrêté ci may xeexal dëgg may xeexal Sénégal. ASID TV. la chaîne des patriotes. jërë ngeen jëf mbégte la saay su nekk euh, di leen dalal seen seen bi di ASID TV la chaîne des patriote Ndongo te yow lañ dalal suñu waxtaan fas yéene waxtaan ak yow ci actualité politique Ndongo Diop activiste en même temps nekk ci parti Pastef ah? uh-huh. waaw Ndongo yow dafa mel ni jot ngaa dundu jamonoy Adji Sarr Ousmane Sonko yi niñ tegoon loxo fële sa jurbeel ba yóbbu woon la si euh, maison d'arrêt ba. ginnaaw loolu gis nañ ne boobu ba léegi sa combat yaa ngi koy mëne bu baax ci Facebook bi ngay subir ay menaces ay intimidation ay mbir yoo xamante ne daanaka yaa ngi koy dund boobu ba léegi dañu buggoon nga wax ñu ci tuuti daal ci li ngay dund. waaw euh, merci beaucoup avant tout nga permettre ma rek euh, ma remercier la ci invitation bi d'habitude man tàmmuma woon di ñëw souvent ci yenn chaînes yi. pourquoi parce que man maa ko opté woon. parce que souvent dama ne woon samay message nay jàll rek loolu moom ma intéressé woon mais yow moom suma frère nga franchement mënuma bañ a teew sa émission te di jéglu nag le fait que yéex a ñëw mais yow moom lu mënuma la bañal dara <laughs> comme ni nga ko waxee aussi tamit c'est vrai que jot naa dund li nga xamante ni moom mooy événement mars passé mu nekkoon benn moment bu xawoon a difficile ci sénégalais yëpp du ci man kese mais ci ñëpp donc arrestation boobu nga xamante ni jotoon naa koo dund sant yàlla laa ciy def parce que arrêté wun ma ci lu bon def ma lu bon dañ ma arrêté ci may xeexal dëgg may xeexal Sénégal donc arrestation boobu noonu sant yàlla bu baax laa ciy def parce que li tax ñu arrêté ma mooy xeex dëgg buñ ma ci arrêté waatoon fii ma toog damay santaat yàlla rek dundaat ko aussi parce que tant que jubadi mu ngi am moom dañ koy fas yéene xeex bu jub am ndax loolu moom mooy li ni animé Ndongo yow ginnaaw bi nga xamante ne yaa ngi mëne combat bi ba léegi dafa mel nii fa nga doon liggéey sax dañ la fa mujj jëlee ndax combat bi nga nekk wala. du fa nga doon liggéey kese mais ci lépp mm-hmm. parce que comme ni nga ko waxee rek intimidation yi menace de mooy mais man loolu lépp doonul la nga xamante ni man intéressé na ma. lu ma mm-hmm. intéressé moom mooy su li ma intéressé man en personne mooy atteindre objectif lan mooy atteindre suñu objectif moom mooy fexe ba Sénégal fexe ba doon ba Sénégal doon Sénégal pour les Sénégalais. Mhm. loolu moo ñu intéressé. Mhm. intimidation yeeg yooyu yëpp yàgg nañ koy subir mais loolu dañuy gën a motiver. Mhm. dafa nekk ci ñun benn carburant benn source de motivation la pour ñun. tant que ñu ñuy intimider dañuy gën a engagé wu. ndax dañuy jàpp ne lu nekk dëgg la ndax boo royee ci mag ñu baax ñi ñoom ñëpp ah dañ koo subir intimidation yooyu dañ ko subir. teew dañoo continuer woon seen dëgg parce que dëgg moom boo ci nekkee suñu borom dénk ko kenn. suñu borom daf ne lépp nag mën naa ko jox nit mais dëgg. dama koo téel sama bopp dëgg boobu nag mu téel boppam nag moom mooy ji fekk fekk yaa ngi koy jël di ko sàmm yow da ngay nekk ci position ba nga xam te ni da sant yàlla te nit du la mënal dara ça moom mm-hmm. Mm-hmm. comme ni nga ko waxee rek ba intimidation yi moom dañ ciy sant yàlla bu baax a baax a baax a baax mm-hmm. ndongo ba léegi rek sa jàpp bi nga xam ne jàppoon nañ la ko ba yóbbu la si maison d'arrêt bi nekkoon jur n'est-ce pas te du foofu lañ la téye woon effectivement euh, naka ngeen dundee foofu jàpp bi ñu leen jàpp bi ci jiitu man maa joxe sama bopp Mm-hmm. waaw dafa mel ni yow sa daan naa la gis ngay def live Facebook. <laughs> maa di wax ne gaa yi ñu ngi may topp. maa maa joxe sama bopp juste dama bëgg ñenn ñi xam ne. Mm-hmm. fi ñu mën a jaar ba mun ñu topp ñun mën nañ fa jaar ba ñu am. Mm-hmm. yaakaar ne loolu olof Ndiaye di wax naa loxo lu mu mën a def loxo mën na ko dindi. ci événement mars yi. war ñu woon nu teg loxo tànk réussir noonu. te lu nu waroon a réussir moom mooy fexe ba protéger li nga xam mooy projet bi. fexe ba dëgg fës Sénégalais yëpp xam ne lii mooy dëgg. donc ñoo waxoon ci suñuy comme ni nga ko waxee suñuy laaf ne. Mhm. bu luy jàllee fekkee dañoo bëgg a jàpp. Mhm. soxlawul ñu ñuy wëri ñoo dem joxe suñu bopp te ni ñu ko waxee woon noonu lañ ko defee. ah yow yaa dem joxe sa bopp. effectivement a weesu mooy ni euh, ñaan nan ñu na nan bàyyi ñu dégg ndigal bàyyi. Mhm. ci kaw loolu man ñu woo ma en personne ma sa dossier de neen duñ ko bàyyi dañuy continuer topp la. parce que doon nga ka xam te ni yaa leen gën a sonal. doon nga ka xam te ni yaa doon motiver booy wala boog yaa doon organiser yenn yi. dem na ba di ma accuser ne Mm-hmm. ay nit dem di ci su ma der mais sant yàlla bu baax mm-hmm. sant yàlla bu baax man maa mag loolu bases yooyu du ma ko def mm-hmm. man su ma amee ku ma jàkkaar loolu Macky Sall la doon bu ma amee ku ma jàkkaarloo mooy les comploteurs la jàkkaarloon la doon ñoonu laay jàkkaarloon en personne ne leen lii du fi am te du fi am te yaakaar naa ne dëgg boobu ñu doon xeex askan wi ànd nañu ñun génn ci biti xeex leenu ko ba tax ñëpp a xam fu dëgg bi féetee donc bi loolu jàllee ma yëg ne man kat vraiment duñ bàyyi sama dossier dama jël sama drapeau wane na patriote la comme dab mhm. tàllal ko police fekk ma fa ma taxaw tàllal ko te yaakaar naa def ma leen jàpp ma bi ma jàppee dugal ma ci li nga xam mooy seen fourgonnettes yi mhm. dan ma wàcce waat waat ay 4x4 spécial andi ay gars yi nga xam ne ñu xaw a costaud ah la def way jàpp dugal ci benn euh, nu ñu koy waay ay 4x4 mhm. bi ma wàccee police ñu bëgg ma traîner comme benn criminel may leen non damay du damay dox nànk parce que kilifa laa ma dox nànk dugg ci biir ñu ne ma jàllal cellule ma jàllal cellule bi ubbi sa portable ma bañ Mhm. dañ lay yóbbu Dakar pour ubbi ko may leen sees def leen lu leen neex noonu la mbir mi demee ci biir nag voilà gisoon naa ñu may jéem a intimidé waxal defal lii si ñeel nangam nga ma ne leen tant sama avocat toogul du ma wax ak yéen. du ma mhm. signé. Mhm. te ba nii may waxee ak yéen amul benn PV bu ma signé bu police. Ah, kon bañ la fa teewee ba léegi ba ba nuñ la mujjee bàyyi noonu signé woo fa benn PV. amul benn PV bu ma fa signé. mais yow comme li nga nekk ak ñoom doon xëccoog ñoom si biir kaso bi di xëccoog ñoom buñ la waxee defal lii nga bañ nangam ak nangam dund nga fa ay souffrance ci biir kaso bi souffrance moo fa dund mooy su may ko suma doom mhm. bu dee souffrance moo fa dund rek man mhm. sama aqulaay taala mooy parce que ñi ma nekk loon ci biir kaso bi de passage dama leen di saluer mhm. ay nit ñi responsable mais seulement xeex dëgg boo koy xeex danga koy xeex ci biir ci biir doo ko fenn amoo fooy ragal parce que yàlla ba mu ñuy sàkk d'abord ñun loolu mooy suñu philosophie mooy man lu mu war a am yow mi ma jàkkaarloo mënoo ci dara d' abord. Mhm. li ma war a ñàkk itam mënoo ma ko may sunu borom moo ko bind sama jël su may dem su ma waree dem mënoo ma téye ak chaîne boo mën di yor ak pouvoir boo mën di yor su may su may dund itam mënoo ma rey. Mhm. kooku sunu borom moo ko yoral boo ko yoral boppam philosophie boobu d' abord lan am mooy mhm. lépp lu am rek sunu borom la mais nanga ci ci lu muy ci biir kaso bi bu dee lenn nag laa dund muy doon naqar mooy sama doom dañ ko chaque jour dañ ko doon andi ba ci buntu kaso bi ne ko papa sa papa ci biir day liggéey. sa papa mi ngi si biir day liggéey bu mhm. soog a calmé wu sinon dafay jooy wala ah, maanaam ba doon nekk kër ga di agité wu merci sama papa jooy ah. parce que moom tous les jours mhm. maa ko doon sang jël ko toppatoo ko yóbbu ko mu jàngi mhm. bët bu noonu la doon demee ñun te pour muy nelaw man maa koy teg sama dënn bi chaque jour mu nelawoon mu dem ba gisatul papam léegi dañ ko andi ba ci buntu kaso bi ne ko sa papa ci biir lay liggéey mu mujj gi mu comprendre parce que boobu moom amoon na ñeenti at ba tey mu ngi ci ñetti at amagul juróomi at. Mhm. mais lan moo ci am mooy dafa dem ba dégg peut-être xare xale moroom di ko wax mu ne yaay sama papa dañ koo tëj ci biir wax leen ma déggee loolu parce que ci journal laa ko liiree affaire bi metti mu touché ma. Mhm. mais la xamul dara. Mhm. mais li may xeex pour moom la. loolu rek laa xamoon ne metti woon na ma ci biir. beneen bi ci topp mooy. jeunes yu ñu tëjoon injustement. accusé leen à tort. nga xam te ni police bu Mbacké. dafa doon def ci yi. amul benn preuve que booy leen accusé ay instance ay tribunal ak ay naqs du noonu jël leen andi leen foofu. mooy jamono yi doon euh, Touba yëngu bi fa amoon. muy yëngu bu fa amoon parce que man Jurbel man la Jurbel man Jurbel man yooyu yëpp la ñu boole. merci seen saw. man lépp lu xew dan ma man sama dossier yaakaar naa ne moo ci gën a luur. Mhm. Mhm. sama dossier. moo ci gën a luur ci dossier yëpp. li ma accusé yëpp sama dossier moo ci gën luur ci ñëpp ñun jàpp ci manifestant yi. Mhm. moo tax pour ñu bàyyi woon la sax c'était un tout metti woon na daal merci beaucoup mhm. ay article yu ma visé nit sax du ko visé nit mhm. te yaakaar naa ne ka xam musul def su dul noonu nga bëgg ko giñ yu mel noonu yaakaar naa ne da ngay wax parce que dëgg rek lañ doon xeex bu dëgg neexee yàlla te ñépp xam ne ne dëgg lañ doon xeex ak ku toog nga wéet ak sa bàmmeel nga wéet ak sa bopp ak sunu borom nga xam ne ñii dëgg lañ doon xeex jeune yooyu ñu jàppoon andi leen foofu noonu injustement ñenn yoroon seen i njaboot ñenn yoroon seen i wajur ma gis seen souffrance ma bokk ak ñoom ci biir affaire bi metti ma bu ñu isolé d' parce que période Covid la. Mhm. ma muñ ko demandé seen libération kenn tontu ma parce que injustice bi ñu fa njëkk dund moom mooy lu naan wan kaar ci biir kaso. wan kaar moom mooy tëbbal la benn kopp nga reeree ko. kopp lan benn kopp ndekki. kopp yi ñuy naanee ci kër yi kopp yi ci kër yi. waaw ndax kaso yi li leen war a jox pour ñu dundee ko jox ñu leen ko topp toppatoowuñ leen faale wuñ leen en réalité. ñu nekk ci kaso yi. Mhm. ña fay liggéey sax nekk ñu ci condition yu baax ba ñun fay tëj di nekk condition yu baax. Mhm. ña fay liggéey kon boo demee seen kër yi da ngay rus fu ñu leen rôle fu ñu leen loger. Mhm. ginaar bugg fa dëkk. ginaar. bugg fa dëkk. ñu loger leen fa. ñu dund condition yi metti donc ñooñu nga xamante ni ñu ngi dund ci condition rawatina ñoom ni ñuy garder kon donc. bi ma ñëwee ñu toog quelques jours gars yi année loolu proposé na ko. man ma bañ ne lii duma ko lekk. ñoom ma tëj ñoo ma jox ma lekk. pot bi ceeb lay doon wala lan. non moo xam dañ toggal mu xam sax moo xam dara genre kopp lay xam sax au milieu la war a yem. mooy benn repas boobu ngeen. jël per benn mm, benn benn repas benn yoon si jour bi. heure ko defoon heure reer parce que ñun chaque jour dana ndékki dana añ dana reer. Mm-hmm. mais heure reer lañ ko defoon. Mm-hmm. li ma fa fekkoon aussi tamit mooy ndékki bi mbur bu fukki dërëm lañ lay jox ba ma ñëwee may leen wankaar bi ba ma ñëw ba am quelques jours. ñu mm-hmm. def ko may leen lii woo boo yëpp ci biir ñun ñoo xam ne noo isolé ne leen lekk lii duñ ko lekk am benn garde bu ñëw sama waay la ma ay gars mu doon ne ma fekk dafa am ku fi wane boppam ne wane wax boppam mu ne ko man damay wane sama bopp. Mm-hmm. parce que su droit la nga lekk ba suur naan ba màndi ñoom ñoo la tëj. Mm-hmm. donc ci kaw loolu suñu xëyee kaso bi nit ñi xaw a yëngal ñu teg ko ci suuf wax dëgg fa yàlla. Mm-hmm. ñu teg ko ci suuf di ñu jox ñi añ ba suur. ah maanaam yéen boo leen yëngalee. détenu yi bu ñu yëngalee gars yi tegaat lépp mu normal. ñu tegaat lépp parce que xaw ma lu taxoon parce que directeur bu fa nekkoon dafa dem beneen bu bees ñëw fu ñu bëggoon a teg formule boobu. Mhm. ñu ne du ci dal. Mhm. en plus ñi ñu yilif kaso yu jugee Thiès bu ñu fa ñëw def visite dama leen taxaw ne leen leen lii ngeen di jox gars yi lekk bi ngeen di lekk mbaam bëgg koo lekk. Mhm. benn deuxièmement li ngeen jox ci gars yi ci mburu ñu koy lekkee taamuñu ko dana war a lekk ba suur. ci la wax dëgg fa yàlla ne lii dina changé. dina leen defal léegi mburu par exemple exemple xam naa njaay nan maree mais mhm. daf ci am solo. Mhm. bu bu bu bu moitié kilo bi ñaar nit bokk kilo. Mhm. ci la lañ ko commencé def. après aussi tamit ci la waxoon na la améliorer li nga xam mooy lekk bi bu nga fay génn moom lekk bi améliorer wuñ ko moom. waaw franchement. damay des ak yow ba léegi si mbir mi nga xamante ne moo taxoon ñu teg la loxo muy mbirum dossier président Ousmane Sonko ànd ko ki nga xam ne muy aji saar jamono yi mbir mi yënguwaat na. ginnaaw sorti bi nga xam ne Ousmane Sonko defoon na ko Walfadjri wax ne dootul dem signer mu doon stratégie de communication boo xam ne indi woon na ko. si mbirum dossier bi ñu commencé gis sorti côté mouvance présidentielle bi ñi nga xam ne muy magistrat yi génn di wax tamit. boobu ba léegi coow li jóg na ba jamono yi ñu mujj rek. bi si gën a fës muy ki nga xam ne muy Mollah Morgun. gis nañ ko mi ngi def ay révélation ba si mujj bu démb bi rek defaat na ay révélation si dossier aji Sarr Ousmane Sonko. te yow lem ne ràññee nañ la si woon si page Facebook bi yaa si doon wax chaque jour. mbirum dossier Adji Sarr Ousmane Sonko bi nii ban jàngat nga si am. avant may tontu question boobu rek ñu baalum parce que dafa am ma fàtte. Mhm. moo durant sama 4 jours yu ma def grève de avant may ñëw ci fii. ah kon def nga grève de la faim. mooy 4 jours. c'était mhm. finalement libéré nañ leen. Mhm. defoon naa ko ci jàmm. xawoon naa si buru ci biir. mais alhamdulilah. mais pour revenir sa question bi nga ma posé. concernant mi nga xamante ni moom mooy. génn bu bees bi ak révélation yi nga xam mooy Ousmane Sonko. Mhm. yow moo laa moo gën yi autant pour moi. Mhm. bi ci jiitu magistrats yi Sénégal yi quatorze personnes de nañ fi mosuñu def conférence de presse mosuñu autosaisiru waaw wala déet. Mhm. président Macky Sall génn fi ne yenn dossiers yi man maa teg sama conc ci yenn dossiers yi waaw wala déet. ay kàddoom la de. kàddu Macky Sall ne man maa jël sama conc bi teg ko ci yenn dossiers yi. magistrat yi génn ñu def li nga tax mooy conférence de presse bu dee néewal doole li nga xamante ni mooy le pouvoir judiciaire le président de la république ki nga xam mooy yor pouvoir exécutif bi moo ko njëkk def ci ci nan parce que boo taxawee xamal ne sénégalais yi yow da nga am pouvoir muy le pouvoir bi nga xamante ni mooy le pouvoir exécutif am beneen pouvoir ci wet muy le pouvoir judiciaire wala def liggéeyam mm-hmm. nga ne yéen seen liggéey boobu ngeen war a def man sama coon kenn mun ci dara Mhm. du ma bàyyi kenn du ko àtte parce que bu ñu leen àttee dëkk bi toj noonu la ko waxee. Mhm. ba tey ñoom gën ñu def conférence de presse léegi lu tax ñu bëgg a jaay doole ko mel ni président Ousmane ko parce que kooku dañ koy jaay doole xam nga kii dafa ne maa tayisme la def muy lan yenn dossier yi maa ko téye dafa ma neex ma teg sama conc mhm. parce que wax ji loolu la. wax ji loolu la dafa neex ma teg sama conc kee di génn di défendre boppam bëgg ñu leeral dossier bi bëgg ñu àtte ko magistrat yi génn ne maanaam. di ji wane ne kenn du néewal dool li nga xamante ni moom mooy moom mooy li nga xamante ni mooy la pouvoir judiciaire mm-hmm. mais pouvoir judiciaire sax dañu ko amut mm-hmm. parce que bu doon am nañ ko ñu autonome comme ni ñu ko waxee am seen liberté Macky Sall jour boobu mu wax nga xam avo ba nga xam ne ni haute trahison la jour boobu mu ko wax mm-hmm. jour boobu dañu ko destitué jour boobu mu ko wax jour boobu la ñuy auto la ñuy autosaisiru jël dossier yooyu ci moom far force wan ne ko yoon bi dëkk bi dëkk bi yoon la waaye loolu dafa justifié waa rek de plus que dëkk bi du dëkk yoon dëkk ñu am ñi la ak ñi amul dëkk ñu am doole ak ñi amul doole dëkk matéisme pur et dur la dëkk ba nga xamante ni amuñu ay pouvoir benn pouvoir daan am muy le pouvoir exécutif lu ko neex lay def mooy buum di bummi kon donc loolu day wane ne rek ne conférence de presse boobu ñu def yëpp dëggantaan bu dëgg neex yàlla ñu xool ko ba xool mm-hmm. dafay mel ni daaray kocc mm-hmm. parce que Sénégal yi gëmatul li nga xamante ni moom mooy suñu justice mm-hmm. parce que ki nga xam dafa saa ci bëy deux ans lañ koy tëj waaw ku sàcc milliard ñaata béy la surtout nga sàcc 94 milliards hmm. mu leer naññ ban ubbi waat dossier bi mais duñ ko mos a jugé ndax amuñu fit jugé ko ndax président nee moo ci teg concam loolu leer na noir sur blanc. Hmm. beneen ba ci def révélation yi nga xam te ni Mora moo def gën def na ko. Hmm. yàgg noonu yor ojo yàgg noonu yor preuve yëpp te yoroon nañ yeneen preuve yu ko gën a doy waar ci mbir mi yu ko gën a doy waar. mais man su ma ko génnee yàkkamti nan ma yàkkamti ba nga xamante ni citation direct lan may envoyé. pour jéem a nasaxal mu tëj ma ci kaso bi duñ leen ko may dañ leen di bàyyi ba tribunal ñoom moo la moor heureusement dem nañ ci dëkk droit dem nañ ci dëkk ba nga xamante te ni am na liberté d'expression mun nañ ko fa wax dara du leen ci fekk te yooyu mu def je dis bien et répète que audio yi dafa exister et c'est vrai dafa exister et c'est vrai am na yeneen audio ak yeneen ak yeneen parce que bul yaakaar ne ñoom mais audio mais audio audio bi génn nii barki démb est-ce que hmm. nekkul audio bi nga xamante ne jamonoy yi euh, Babacar Touré ba mu génnee mu ne Adji Sarr daw na ba Françoise Hélène Guèye génn contredire ko ba mu mhm. amoon problème ak benn élément bip bi mhm. audio bi dafa mel ni période boobu la de avant même avant la dafa am audio yi nga xam ne ni avant la mais Adji Sarr bi mu koy envoyé ki nga xam mooy MC parce que il faut gars yi def attention ci benn mbir bi mu koy envoyé MC yàggul waaye ñun ñenn ñi buñ ciy jot yàgg na nan lañ ci jotee loolu nag ñun la parce que état yéen ñii di journaliste sax yi def seen liggéey normalement da leen di espionné may ñu leen jàmm may ñu leen salaam. Mhm. mais ñoom kese yoruñu monopole ñoom kese yoruñu mënuñu ñoom kese nekk ñoo mën Sénégal. Mhm. foo jaar ba mën a dëgg te def nit lu bon wala ba mu ko utal ay ndëgg sërëx. Mhm. suñu borom jaarale ko fa war yoon wu leer bu mu mën a amee moom it lu mu la poñee. ñun danoo yor lépp toog tey démb tey soog a ñëw. partout foo dem y a des patriotes. des gens engagés pour défendre li nga xam mooy dëgg. audio yu bëri yàgg nañ ko yor toog di xaar procès lu bëri yàgg nañ ko yor toog di xaar dëgg jib mm-hmm. donc muy lan muy Babacar muy ki nga xam Pape Alé Niang yàgg nañ koy wax sénégalais ñen ñi gëmuñu leen. daan nañ dégg Pape Alé di ko wax naan ñi ngeeg ñi ngeeg ñi ngeeg ay preuve yow ñi ngeeg ay révélation ay portable nday ay audio whatsapp yoo xamante ne yow buñ ko génne woon dëkk bi toj lu tax nanguwun portable nday xadi ñu ko lu tax nanguwun li nga xam te ni mooy appel yi jëm ci Sidi Ahmed Mbaye lu tax ko ubbi enquête bi parce que pour rappel rek ne pour rappeler ne ne ki nga xamante ni mooy procureur bi nga xam capitaine mi ngi def enquête am Mm-hmm. di def enquête am dem ba ci biir xam ne lii ay caaxaan la mu bëgg a orienter enquête bi vers ci benn théorie complot mm-hmm. n'est-ce pas mm-hmm. lu mu ko wax baax na mu bëgg a insister waat procureur Bassirou Gueye ne ko baax na parce que ñoom ñu leen intéressé woon ñoom mooy faagaagal Ousmane Sonko mooy seen biir ñoom li nu defoon mooy lan mooy ñoom seen biir benn clan bu ñu defoon benn groupe bu ñu defoon benn clan ba nga xam ne ni pour faagaagal doomu aadama la loolu lañ defoon te loolu lañ gisoon gis ñu woon leen loolu ñoom loolu loolu mooy li nga xamante ni moom mooy réalité bi. mais moo laa Morgun. Mhm. révélation yi nga xam ne génnee na ko. Mhm. jëmale ko ci Bougane. Mhm. Mamour jàlloo ak député bi ñu mujj wax démb. ñooñu noonu ndax séntu woon nañ leen si mbir mi. Ousmane ko boo bëggee dégg-dégg xam nga lu naan système bi. lay gêner. xam nga saa waay mais Bougane daa bokk ci système bi. dama ne eh, yéen journaliste yi yéen journaliste ci boppam. Mhm. pour wax leen ngeen dégg. Mhm. dafa am ci yéen ay patriotes. Mhm. mais ñi leen di empêché ngeen defar seen liggéey dëgg-dëgg jox ay information wéer sénégalais yi mooy patron de presse yi nga xam ne leen a jënd. à des milliards. loolu mooy dëgg ji. parce que gagne lañ def jeunes yi. système bi ci boppam parce que ku ku aj doo nangu ki nga xamante ni doo nangu ku teen mhm. loolooy mbir mi ñoom seen jëm bopp aj bi nu aj moo tax nangun teen léegi système bi moom mooy lan système bi mooy ñi nga xam dañoo poñe senegal ndax boo xool muy ñoom buggaan ñoom ñëpp ngay gis ñoom ñëpp boo fa mel ni ñoom ñëpp Ousmane ko mooy seen adversaire soo xoolee seen wax seen i defin dafa mel ni Ousmane Sonko mooy seen adversaire te dafa mel ni démb Mollah mi ngi wax Adji Sarr fi mu nekkoon cité góor gi fi ko fi ko abaloon appartement boobu Bougane moo ko moom. dama lu wér la. Mhm. ne lii nga wax nii lu Mora Mor wax lu wér la xam lu tax parce que ñoom seen biir ci jamonoy te il faut sénégalais bàyyi xel li tax ñëpp di jóg yi xeex Ousmane xam nga ñaari nit buñ xamantee ci ay musiba. kenn ku ne booy wadd war a di jàpp sa moroom yéen ñaar ngeen àndandoo wadd benn moment da ngeen di mujj allié wu pour xeex ki leen di waddloo. Mhm. loolu mooy lan loolu mooy ci jamonoy laay wadd ba ci jamonoy Macky Sall bii. Mhm. ñoom même clan bi la même club bi la bi nga xamante ni teg nañ sénégalais yi metti sàcc nañ def nañ ay njuuj njaaj de te sot que xam nañ benn affaire ñu ne jeunes yi voix bi ñu jël bu ñu ko continuer ñu ñëpp ñu fi defoon musiba tey ñu dee. kenn ku ne jàkkal ak sa moroom xamal ne ko man su ma naree dem du ma la bàyyi yow kese de dañuy àndandoo parce que maag yow ba mm-hmm. soo xoolee ñoom seen biir ñu naan mburoog soow bi danoo yàgg xamante yàgg def seen i njuuj mm-hmm. moo tax bul sonn dañuy wax ci kaw juboo ci suuf mm-hmm. léegi nag kan moo leen gêné mooy ki nga xamante ni moom moo osé Sénégal taxaw fi ñëpp nan waxante dëgg ne fu nu gisee Ousmane Sonko loo ko mën a giñ ñoom waxu taat rek lañ ko mën a wax ay waxu ay taat yu ñàkk fay def yu ñu tegul fenn te pour pour rappeler les sénégalais ne leen d' abord viol preuve bi dafa war a scientifique. Mhm. n' est te li nga xamante ni moom mooy certificat médical bi da ko démenté. Mhm. kon seen wax boobu ñuy wax amatu solo. certificat bi kay wax noonu da ko démenté mhm. léegi nag ñoom Ousmane Sonko ci boppam nan la leen di gêner moom mooy benn bi ci jiitu mooy moom rek moo sañ taxaw ne fu ñu gisee fu ma jëlee fukki dërëm bu jàmbur nan ma ko ñëw wax wala ñu tëj ma ba mu koy wax ba léegi kenn démentiru ko. waaye loolu ak jub nu ko weesu waaw wala déet. Mhm. nekkoon naa ci position yi nga xam lu ma neex mënoon naa ko am kenn du ko weddi ndax ña nekk ña ngay am ay milliards ay Lincoln la ñuy dawal ay oto ay 200 millions de francs CFA la ñuy dawal ak seen i jabar ak seen i oto seen i waa kër. Mhm. mu leer ñëpp. kon donc kooku noonu nga xamante ni dafa mel noonu ñoom dañ koy bëgg a takkal pour mu mel ni ñoom dañ naan askani Sénégal bëgg a lëre seen askanu senegal ne leen ñun ñëpp yem baaxuñu mais malheureusement nag sunu borom ni mu sàkkee ñu jubadi noonu la sàkkee ñu jub. Mm-hmm. te kin koy bëgg a forcer jubadi gi jubadiwul ni ñoom dafa bokk ci ñu jub ñi. Mm-hmm. ndax loolu mu wax moom moo ko sañ na keneen génn wax. Mm-hmm. loolu mooy loolu mooy li leen tax ñoom ñëpp ñu dajaloo ne kii kat comme que mel na nii mënuñu ko giñ ñu bon mënuñu ko wax lu bon mënuñu ko yóbbu lu bon te mënuñu ko taxal lu bon noonu ko tilimal ndax boo seetlu nga wala nga déglu li nga xam mooy audio Dior Dior Diagne bu ñu amoon. audio bu njëkk génn. merci lu ñu wax dañ ko traîner dans le boue. Mhm. waaw waaw wala déet. Mhm. n'est-ce pas loolu wax. Mhm. maanaam nañ ko tilimal. nan ko tilimal pour askan wi weddi ko ndax ñoom boolu foo leen invité la leen wax Ousmane day Sonko day wan moo gën nit ñi Ousmane Sonko day wan ne moo gën a jub nit ñi day wan ne moom nangam xanaa moom du yàlla du yónent lool la ñuy wax waaw wala déet. pourquoi ñuy wax loolu avala ci ñoom avant la muy lan ñoom xam nañ ne ñoom léegi dañuy force ni ñi naan kii day jéema a ne moo mel nii wala nangam waaye suñu borom moo ko def noonu moo ko sàkk. mosul mm-hmm. sàcc mu leer sénégalais yépp te mun ba léegi mun nu ko giñ détournement te ñoom ñëpp koo ci laal ku ne mën nañ la giñ détournement. ci mm-hmm. buggaan lu mu yoral waa jooni jooni ak ci ay employé am lu ñuy dund ba gën di ko dénoncé ñeneen ñi des ma waxuma la ay sàcc yu mag ñoo ci ne ñii ay 94 milliards ñii ay nangam ñii ay nangam ñii ay surfacturation ci seen direction. Mm-hmm. kon donc ba dëgg neexee yàlla ba dëgg neex yàlla. Mhm. kon ci wàllu woowu noonu bu dee dañuy doona war a topp ne ne ko wuub sàccee ñoom la ci seen doxalin ak seen jëfin bu dee dana war a topp ay sénégalais ya nga xam ni jëfuñu lu rafet ñoom la li ëpp solo mooy ñoom nan wax ci ceeb bu seer bi duñ ci nangoo wax. Mhm. nan wax ci nguur jigéen gu nit ñi sénégalais dénoncé duñ ci nangoo wax nan wax ci courant bi duñ ci nangoo wax nan wax ci ndox mi bu sénégalais nga xam amatuñ sax lu naan duñ ci nangoo wax. mais pour pourquoi ñu topp doomu jaamur bi bu ko complot fu ñu toll diw diw diw diw diw diw diw diw. bon gis nañ ki nga xam ne muy MC ba mu génnee wax muy euh, sëriñu Adji Sarr doon sëriñam doon sëriñu pàppam génn na wax Maître El Hadj keroog gis nañ ko mu génn démentir ko. ne euh, MC Niass li mu wax amul. ba mu ko démentiree teguñu si ay minutes. Cheikh Baara Ndiaye bi nekk wal Walfajri tamit génn tamit demantir Maître El Hadj Diouf daal di dëggal audio yi nga xamante ne MC wax na ko toog ne toog naa si biir oto MC Niass déglu ojo yëpp am na audio yoo xam ne sax bu génnee senegal danañ xam ne kii defendre Adji Sarr sax am na mbir mu buggoon si Adji Sarr te bu boobaa na fexe sax taxaw ne bu mu fexee taxaw sax ne Adji Sarr waxul dëgg. Mhm. Adji Sarr waxul dëgg. loolu tam ban jàngat nga si am. ojo yi nga xam ne ñu ngi koy séentu si El Hadj Diouf. Mhm. ba yomal xëy am. ba yomal xayaam ñun dañuy wax ci ay preuve ñoom ba yomal xayaam dañuy wax ñoom ci kaw nii rek dama ne ñun heure bu ñu waxee dañ koy teg ci preuve génne ko Sénégal yëpp di dégg mu leer nañ ñoom nag ba léegi ci défensif la nekk démenti te démenti boobu moom ana seeni preuve duñ ko mës a génne ñun ana suñu preuve leer na nañ audio bi leer na noir sur blanc kenn du ne montage la mu doon lu wér mu doon lu wér am yeneen ak yeneen yoo xam te ni comme comme ni ñu ko waxee rek am na audio yi nga xam ne laa wax bu génnee fii gën a toj bu génnee sénégalais boo moytul yar la jël fekk leen buntu palais mhm. Mhm. mais le problème en est ñoom seen jëmu bopp ci kaw la ñuy wax chaque fois te du mës a génne preuve parce que problème mooy haine bu nu am envers Ousmane Sonko la haine bu nu am envers ñi nga xam te ni ñooy xeex dëgg mbir mi loolu dong la mais nekkul ne ñoom seen jëmu bopp. ne ñoom danoo bëgg def la nga xam de telle sorte que ñoom dañuy dañuy jéem a setal ki nga xamante ni moom mooy Adji Sarr mënuñu ko mënuñu setal Adji Sarr dañuy nax seen bopp mënuñu setal ñoom sax seen bopp dañuy nax seen bopp ñoom dama doon bëgg ñoom bu ñuy wax ak sénégalais ñu teg ko ci ay preuve ci ay bases solides mais bases solides yooyu ñoom amuñu ko ba da koy teg. nonko mm-hmm. dañoo gis si ñenn ñi nga xamante ne dañuy defendre Adji Sarr ba léegi. Mm-hmm. comme waa CODAS. ku si mel ni Françoise Hélène am na live bu mu def barki démb yàggul rek fan yu ñu génn ginnaaw bi am MC Niass defee révélation yi. Françoise Hélène Guèye dañ ko dégg parce que wax jooj dañu bëgg nga indil ñu si sa jàngat. dafa xaw a lënt suñu xel. ndaxte dañoo dégg mu ne président Macky Sall. yaa ngi recevoir. façon nit yu ne. di leen recevoir di leen di leen jàppale di leen taxaw. te Adji Sarr victime la. te ki ko teg mbir mi mi ngi dox di dugg fu nekk di dox soxlam di def lu nekk. Mhm. te yow Macky Sall président Macky Sall ba léegi munoo fexe ba recevoir ñu ngir jàppale ñu si li nga xamante ne muy mbirum aji Sarr te loolu dañ koy naqarlu dégg nañ ki nga xam ne muy Françoise Hélène Guèye wax ko. loolu daf ñu yóbbu ba léegi suñu xel ñu doon wax ne moom mbir mi est-ce que du kon da siy séentu post wala xaalis. avole encore. Mhm. loolu avole encore. Mhm. lan mooy avo bi mooy lan. nee na na leen président Macky Sall jàppale loolu lan wax. Mhm. loolu ava munu ko weesu. te pourtant Macky Sall moomu de moo waxoon ne mbir mi entre ñaari citoyen la yoonam nekku ci mais tey ñu ngi koy sollicité moom pour mu dugg ci loxoom musu ci loxoom nag musu cee génn. Mhm. loxoom moom musu caa génn. Mhm. n'est-ce pas kon ñoom tey jii bu ñu demee bay demandé lool sekk que danoo bëgg a jël doomu jàmbur bi def ko gagne-pain mais man question mooy posé ana ay mbokkam. mbokk Adji Sarr ana ay mbokkam. Hmm. question boobu laay posé ana ay cousin ana ay nijaayam ak lu mu mën di metti metti metti seen mbokk la doomam bi nga xam seen doom bi nga xam ñu ngi koy jàpp di ko def gagne-pain wala bokk pour gagner ci moom ay vie wala pour gagner ci moom ay notoriété. Hmm. bu négatif nag bu négatif ana ay mbokkam toog di ko seetaan comme ni ko moo laa waxee Adji Sarr dafa jógee dëkk ba am lu bari lu mu xamul fii. ñëw di sàkku si liggéey di miina daan boppam maanaam di miina daan dooleem ñu dugal ko ci xat-xat yii mu juddu gisul ndey encadrement manqué ci moom. Mhm. ñu profité ci situation bi dama ne ñoom ñëpp ku ci ne am nga doom. Mhm. te yaakaar naa ne seeni doom yi ñoom defloo wuñ ko lii. Mhm. di ko def defloo doomu jàmbur. parce que ñoom lijjantiwuñ aji Sarr xam nga lal moo la ñor seen poste seen gagne-pain seen image. seen far fa nga xamante ni mooy lool ci ay caaxaan. Mhm. seen bopp rek moo leen ñor. au final sax je me dis que ce que ñoom ay doomu aadama lan parce que yéen nit di ko war a rus def wala di ko def sa moromu jullit wala di profité ci innocence su nit wala di profité ci manque doole nit wala ci manque expérience am di def yenn musiba yi wala di ci profité di ci gañ xaalis loolu musiba la pour man. Mm-hmm. ci ñoom ñi nga xamante ni ñu ngi koy def. Mm-hmm. jërëjëf Ndongo ñu fàttali leen bokk internet yi tey ñi ngi dalal suñu jotaay bi di waxtaan ki nga xam ne muy Ndongo Diop doon activiste bokk ci parti Pastef fi may jëm ak yow rek Ndongo muy si convocation Ousmane Sonko bi. Mm-hmm. Euh, euh, jamono yi ñu weesu def na benn déclaration ci page Facebook am wax ne mu ngi sàkku procureur mu woo ko fii wëkk le 6. procureur nag jàppagul date mais moom moo sàkku date boobu. te wax na ne dina toog Dakar xaar ko ñu dox démarche yi muy sàkku si yéen ñi nga xamante ne si Pastef ngeen bokk. Uh-huh. ngeen toog seen kër. Uh-huh. balaa li amoon bee paase di amaat. Uh-huh. te yow bee paase ràññee woon na ne si loolu nag nongo si bundu kër président Ousmane Sonko. nga si am. peut-être euh, nit ñi ma doon gis parce que boobu dafa fekk dafa fekkoon tamit ñu may traqué ñu may wër. mais dama doon dugg rek génnaat doxe sama soxla. Mhm. mais dama bëgg a fàttali di ñi avant may ñëw di ci loolu su ma ko mayee muy lan. Mhm. que Pastef mooy parti ba nga xamante ni. Mhm. ki ko créé wala ñi ko créé jiitewul ko. loolu dégg naa ñu koy wax de. waaw teg ay critères. parce que tey am na benn waay muy le coordonnateur bi nga xamante ni moo nekk Diourbel. bokk na ci membre fondateur yi ci ñu fës ci parti bi moom rek moo ci des mi Matar Sène mm, yaa ngi ma ko doon wax d'ailleurs mm. mu ngi dund lu méttee métti bu ma nee dund lu métti mais nag mu ngi na ci membre fondateur yi quoi ñi nga ne ñoo créé ak ñu jëli woon Ousmane Sonko sax moo nekk li nga xamante ni moom mooy le chargé des finances du parti Matar Sène ah mm-hmm. ñooñu bi ñu ko créé ñoom lu ñu ci jublu woon mooy change mu Sénégal changé ñu am ay dirigeants yu digne yu patriote kon d'abord Pastef ci niñ ko jiitee ci ni ñu ko jiitee. Mhm. moom moo njëkk a ute ak ñeneen yi parce que ku ci ne da nga naan man damaa créé sama parti. Mhm. comme Ablaye Wade. ñoom ñëpp damaa créé sama parti. comme APR waaw. Mhm. waaye parti bi ay nit a dajale am seen xalaat créé ko xool profil bu gën ci profil yi ne ko kaay nga jiite d' abord. ka nga xamante ni d' abord ba nga juddoo ba léegi kenn mënu laa gi ñaar dërëm boo sàcc comme ni ñu ko waxee moom. kenn mënu laa wax mënu laa gàkkal fenn fenn fenn ci sa ci sa cursus ci liggéey kenn mënu laa gàkkal d' abord. kon ça veut dire que kooku nga xam ne dañu ko woo jël si ko tey andi ko moom moomatul boppam. Mhm. moomatul boppam. projet bi moo ko moom. aussi tamit projet bi tax moom mu dund lu ne kon ñi nga xam ne ñu dañoo topp ci ginnaawam dañu ko war a protéger bu ko ñaanee nag nañ ko ko may mais ci ban condition fekkoon amoon nan confiance ci ñi nga xamante ni mooy état du Sénégal. kon bu mu déggee sa biir kàddu mooy yéen doo leen toog seen kër. non. mun na noo toog mun na noo bañ a toog mais ça dépend. ah mais Abbas Fall def na keroog benn euh, mooy waa euh, JPS bi ñuy dajaloo les jeunes partie de xaw ma Pastef de dakaar mhm. wax na ko déclaration bi gis naa benn presse en ligne bu ko dugal. xam nga daf on à la maison. Mhm. mais dañuy dañuy dañuy dañuy vigilant. waaw vigilant voilà reste en alerte. waaw la la wax n'est-ce pas. waaw reste en alerte boobu xam nga mooy lan. Mhm. dama ne ñun fekkoon ci yoonu ci ci ci dëkk yoon la ñu nekk. du nu am problème boobu noonu. mais mais mais mais est-ce que du moom dañ koy dem déglu rek mu ñibbisiwaat comme ni ñu dégloo Ndeye Khady Ndiaye euh, kër Ndeye Khady Ndiaye nañ dégloo Adji moom dañ koy déglu rek mu ñibbisiwaat. Euh, Ousmane Sonko. waaw wax na ko sax nee dañ koy déglu. merci beaucoup dama ne Ousmane Sonko. waaw mbir mi bu ñu ko tegoon ci yoon d'abord kenn du ko woo di ko déglu. Mhm. bu ñu ko tegoon ci yoon kenn du woo Ousmane Sonko di ko déglu. parce mhm. preuve mu xoolal preuve scientifique bi prouvé ne mbir mi am na wala amul dèjà daf la dafa demanter Adji Sarr. mooy docteur bi ko xool CTO. merci beaucoup kon mhm. enquête bi fan la waroon a orienté ci ñu complot la waroon a orienté wu. Mhm. toon sax mu ji ñëw ba 14 personnes ci ñàkk seen bakkan d' abord mais malgré tout insisté nan ba fukki nit ak ñeent ñàkk seen bakkan ñooñu ngay wóolu. Mhm. nga jóge fa ki nga xamante ni moo waxoon ne day def 5 ans forcé def 7 ans kooku ngay wóolu. ki nga xamante ni moo taxaw ne man damaa jël sama conc bi teg ko ci yenn dossiers yi kooku ngay wóolu ki nga xamante ni sénégalais yi nga xamante ni constitution moo nu may moo nu suñu liberté ñu marche ku marche mu dóor mu dóor wala mu tëj kooku ngay wóolu. ñu sànni la jam ñaajo. ba jam ñaajo. Mm-hmm. kooku ngay wóolu ah. kan ngay wóolu ki nga ni moom mooy protégé ay ñoñom di dóor ña ca des te d'abord benn affaire naa la ko wax dan ne ci arrêté Ousmane Ngom bi dan ne woon kenn du manifester fi nga xamante ni mooy place de l'indépendance jëm boori pale dañ koy tere waaw wala déet. Mhm. keroog bi nga xamante ni Alioune Sall accusé nañ ko problème mu 6000 yi mooy enquête bi nga xamante ni waa BBC defoon nañ ko. Mhm. partisan dañoo dem ba bunt palais ba ci gris di ci di ci yéeg. Mhm. waaw wala déet. partisan bi dañoo dem ba buntu gris palais di ci yéeg. waaw mooy li ma la moo am dafa am sénégalais A ak sénégalais B dafa am sénégalais APR ak sénégalais bi nga xam te ni dëgg la gëm. Sénégalais APR lu ko neex lay def nu mu ko neex la koy defee fu mu ko neex la koy defee du ci am lenn lu mu ci xalaat. Mhm. mais sénégale bi nga xam dëgg la la gëm te di ko xeex lu mu def ñu bundu xatal ko wala ñu dóor ko wala ñu sàkkal ko pexe d'abord il faut ñu ko ci loolu. donc ko ñun lu tax ñuy rester vigilant parce que amuñu confiance ci suñu justice. beneen ba ci topp suñuy frère nga xam te ni ay takk der lan ñi leen jiite da leen jox ay ordre yi nga xam te ni xam na ni lii kenn du ko jox doomu aadama ci ay ordre jox la exemple tey jii moo tax à chaque fois damay profité ci occasion bi wax ñi nga xamante ni moom mooy suñu force de l'ordre yenn ordre yi bu leen ko joxetee def leen ko ak tayel exemple basiru fay yi na ma rakkam baal nag mhm. ñun ñu ko doon woowee bas yokkute mhm. n'est-ce pas alkaati moo ko boom mhm. takk der la ci seen biir lan la ñuy wax waa frère am lu ñu koy wax te même alkaati yooyu seeni frère la ñuy boom même alkaati yooyu seeni i frère troxal di dóor waaw wala kon ñi nekk ci kaw dañ leen def benn bouclier pour que ñu dem troxal seen i askan seen mag wala seen i rakk wala seen i doom wala seen i baay mais ñun lu tax ñu rester en alerte mooy lan moo ñun amuñu confiance ci justice parce que justice bu defoon war a def jamono ji enquête bi ñoom Sidi Ahmed may ñoom Mamour Diallo ñooñu la ñuy jël ñuy bagante mais du doon Ousmane Sonko nag bu dëgg neexee yàlla. Mhm. lu tax amuñu confiance ci justice moom mooy. ñoom est-ce que seen temps a am tamit bu demee ba continuer enquête bi. ba hmm, ba ba arrêté enquête bi. waaw mais tey nii mais mais mais tey nii kon kon kon yow bu ma déggee sa biir kàddu. mooy Sidi Ahmed Mbaye bi jël si woon Adji Sarr. ak tamit Mamour Diallo. otom li mu violé sax moo li mu violé xaaral ma ñëw rek xaaral Sidi Ahmed bi jël jël si woon Adji Sarr. ak oto Mamour Diallo bi mhm. chauffeur am beeg yooyu. kon yow bu ma déggee sa biir kàddu mooy ñoom kon kenn du leen convoqué kenn du leen déglu. <laughs> bu leen bu leen tuddee si mbir bi kay après dañ leen war a déglu. bu leen tuddee leen ci mbir mi. waaw kenn du leen tu kenn kenn du leen déglu. mooy lu ma waxoon sénégalais bii dafa am ak sénégalais ba ca des. Mhm. xam nga loolu moom mooy lan bu doon bëgg na mbir mi leer dana waroon a bàyyi gendarmerie jël taam def enquête am. comme na ko capitaine Touré waxee woon. comme capitaine Touré la mu ko waxoon. mais bi ñuy ko. merci te capitaine Touré ñu baal ma tey ci kàddu bi xam nga gendarmerie danaan honneur et patrie. Mhm. ana honneur ba ak patrie bi. danoo bàyyi seen propre collègue système bi écrasé ko. moom de léegi mi village am toog. non dama ne gendarmerie. Mhm. honneur ak patrie boobu ñuy wax ci ñoom. fan la nekk ci ñoom keroog ba ñuy jël seeni frère di ko suivre di ko bunu xatal mu koy dénoncer di ko bind bëgg di di mooy jamono jamono mu yore kayit yore jamono mu yore mbirum enquête bi. muy capitaine Touré muy tiit am njàqare ci sécurité ak famem mooy ba muy wax ne dañ koy topp. merci beaucoup. pourtant nee na alerte na. effectivement mais ana ana ana ana ana ana ana gendarmerie ana division bi muy wax ana bàkkam bu muy wax. seen frère lan baa ñu écrasé ko système bi écrasé ko nu mu ko neexee tout court parce que daf doon tiit ci sécurité am tout court que dafa bëggoon a liggéey teg ko ci yoon pour xaalis bu koy fay weer mu mun koo lew bu koy jëriñoo moo ko njabootam ñu mun koo lew loolu moom mooy lan moom mooy moom bi nga xamante ni bëgg na orienter enquête bi xam ne lii ay caaxaan la parce que certificat médical bi ñëw na démenti ñoom lu ñu wax tous les preuves dafa ñëw démentir leen de A à Z. Mhm. seulement ñoom ñu war leen a topp ci lan ci non seulement dañoo viole li nga xam muy couvre-feu bi te amuñu autorisation génn violé ay def ay violation yu bari ñu war leen a topp ci kaw violation yooyu noonu ba pare mën a ci ñoom enquête la pourquoi d'abord ñu violé loolu pourquoi ñu dem bay def lii te li ñu wax ne dara amu ci parce que li def diffamation la danoo diffamé muy lan muy danoo accuser nit à tort te déjà les les les preuves scientifiques daf leen a ñëw démentir leen. Mhm. loolu waroon na woon lan loolu waroon na woon ne en réalité enquête bi fa la waroon a jëm mais le mais le procureur lui-même moo demandé à ce yéen procureur mu ne ko am mu ne ko procureur moo demandé gendarmerie na fi yem na fi enquête bi yem parce que boobu lu nga ñoroon moom mooy réunion nan dajaloo nan nan sàkkal Ousmane Sonko pexe nan ko jéem a faagaa gal kon ana justice boobu noonu ba di ko wóolu looloo tax daal kon yéen daal toog seen kër doo leen ko mën a def dama ne nongo tontu woo ma sama laaj ba léegi de bàyyi ma la kay pour que Sénégal ñëpp dégguñu nongo tontu woo ma sama laaj ba léegi moom laa lay tontu xam nga Ousmane Sonko dafa génn mu ne mhm. Mhm. toog leen seen kër mhm. yaa ngi may dégg en tant que patriote yow kon bu ma euh, déggee sa biir kàddu ku wóoluwul Macky Sall ça veut dire yow doo toog sa biir kër bàyyi ma wax la benn révélation nga dégg waaw Ousmane Sonko moom dafa am yar heure bu ñu ko ñaanee day maye bu ko kilifa yi wooyee nekk du ñu bëggoon nga wuy ji jàmm salaam da koy may. te loolu sax xam naa def nañ démarche yooyu. ndax ndax ni mu génnee ni dafa mel daa am ñu jaar ci suuf wax ak dama ne dama ne loolu. loolu mooy waru garam parce que leader la. Mhm. day bëgg a sàmm njabootam. day bëgg a sàmm cohésion bi day bëgg sàmm jàmm Sénégal te moom la mës a sàmm bu nu fàtte nag moom la doon bu nu xatal mu jéem a défendre boppam moom lañ buux ba mu sës ci miir bi nag muy jéem a défendre boppam te loolu yaakaar naa ne islam danu ko may diine daf nu ko may lépp daf nu ko garanti. Mhm. d'abord bu la naree sànq moom faaw nga défendre sa bopp. loolu nañ ci d'accord ñu ñëpp d'abord mais dama ne Ousmane Sonko ak projet bi c'est pour le Sénégal c'est pour la l'Afrique moom mootuñ seen bopp d'abord ñun amuñu ci ñoom confiance d'abord comme que moom loolu la war a mën a defee moom d'accord loolu la mën a defee mais bu ñu fàtte ñi ñaan Ousmane Sonko ak ñi nga xam te ni te moom bu ñu ko ñaanatoon sax loolu mooy jikkoom. Mm-hmm. Ousmane Sonko moo wax la tey nga dégg benn affaire usman Sonko ci boppam bugg sax gars yi di wër di photo ak moom. Ousmane Sonko buggul sax nit ñi di ko kii bu sañoon fu mu dem toog day toog nit ñi ñëpp simple ñu waxtaan kenn ku ne joxe sa xalaat. Mhm. bañ na ko booy xool ba bi nga xamante ni mu ngi def campagne Ziguinchor xam lu mu leen wax. contrat bu may signé ak yéen am na bu mu ci waxoon ne leen bokk na ci muy ne ngeen saytu lu may liggéey. salaire maire bi soxlawu ma ko. na ngeen saytu lu may liggéey. Mhm. am déet. Mhm. na ngeen saytu lu may liggéey ndax maa ngi koy teg ci yoon. xam nga kooku bëggul leer moo tax muy def loolu. Mhm. waaw wala déet. Mhm. kon donc mooy mooy lan mooy tey jii moom loolu mu def yëfu leader la def lu mu war a def yëfu kilifa la def waaye ñun dañ cee am wàllu ñu nit. te ñun ñi ci am wàll nga xamante ni keroog ba mu ne man damaa dénk sama bopp sénégalais yi ndax bu nu fàtte senegal moo tax ñu dàq ko bu nu fàtte ne Sénégal moo tax lépp lu mu amoon ci àddunaam ñu xañ ko di ko teg coono di ko espionné di andi ay ay ay ay fourgonnette di ko teg ci buntu këram di ko espionné chaque jour may nu ko jàmm salaam. Mhm. ñu ñi nag mu dénk boppam ñun dañuy toog suñu kër yi naan ok mu ngi dem dina jëm ci jàmm ak salaam di ko boole voyous yi déedéet dañuy rester en alerte teg ay check point lépp lu ñu war a teg teg leen ko ndax bu nu fàtte ne Adji Sarr ay ay agent DIC ñoo koy garder bu nu fàtte ne Adji tey jii sécurité bu mat sëkk la am bu nu fàtte ne ba ba fut xaw ma Fatou Mata Ndiaye nu koy woowee sax. Fatou Fouta Tampi Fatou Mata Ndiaye Fouta Tampi. lu wax nee na woon am na ay sécurité yu ko ministre de l'intérieur jox. Mhm. bu ñu fàttali ne keroog bu duudu di attaqué ki nga xam président Ousmane Sonko. ay ñoñam fay ay nit pour ñu attaqué ko Ziguinchor. Mhm. gendarmerie bu mu ñëwee protégé wul Ousmane Sonko protégé wul ay ñoñam. police pareillement xam nga lan doon protégé. Mhm. waa ko duudu ka pour jéem a génne duudu ka. mosuñu assurer sécurité am d' abord. état du Sénégal. waaw check point boobu nga wax noonu mooy lan. check point boobu lan mooy fépp la ñu ci Sénégal. bawuñu fenn terrasse yeeg fépp partout néeg yeeg immeuble bawuñu fenn fépp la patriote yi ne. mooy check point quoi. dama ne fépp fu Ousmane Sonko toog fu mu romb fu ne ñu ngi koy filmer ba mu yegg ci jàmm ak salaam lu waay di def ci moom na ko xam. Mhm. waaw dama ne lu waay di def durant muy dem ba ni muy dëppee lu waay di def ci moom na nga ko xam. Mhm. kan nag mooy ñu kenn mu di ko jege. te bu jëree sax ñu yóbbu ko dañ koy yóbbu sans dépend situation bu ñuy gis rek parce que bu ñu fàtte keroog ba muy dem di wuy ji tribunal. Hmm? Mhm. dañ ko bëggoon a changer loo itinéraire. d'abord fi njëkk a commencé danoo njëkk a boole ko ne ko bul aw buntu université bëgg koo changé loo itinéraire itinéraire boobu ñu ko bëggoon a changé loo dañ faa tegoon ay nervi bi. police mooy ci tunnel ba quoi. mooy ci tunnel ba. tunnel tunnel su Médioune bi. effectivement teg fa hmm. ay nervi police di gis ma di gis ñu yor ay jaasi ak yat te kenn ngaangul maanaam dañ nekkoon kaa ñu yóbbu la fa lay rey. Hmm. suñu borom dogal ñu ñu organiser wu de telle sorte que ak ñu bëri organiser wu de telle sorte que fu nu war a jaar rek. wala fu nu wax ne jaar leen fa rek am na ñu avancé pour mun a wax situation actuelle ba fa nekk ñun ñu xam ne nuy woo yoot ñu bañ ñu ne ñun comme foofu nee ngeen bu ñu jaar fii ñu changé beneen yoon ngir bëgg jàmm di changé ay yoon di changé ay yoon di changé ay yoon ban jàpp ñu ne léegi xam ngeen lan la yéen a ngi commencé fonto parce que fu ñu bëggoon ñu jaar pour ñu sàkkal ñu pexe wala boog ñu rey ñu jaaruñu fa lu ñu bëggoon amuñu ko léegi ñoom na leen mujjee def mooy ñoom dañoo mujj taxaw di ko géeñ euh, naan ko lan naan ko duñ ko duñ ko giñ ci sax je crois que dañ ko giñ naan ko. ay moom moo yëngal dëkk bi moom moo yëngal jeunes yeeg yooyu. merci beaucoup voilà. merci beaucoup. ci yooyu lañ ko mujj giñ. Mhm. trouble à l'ordre public. waaw trouble à l'ordre public yooyu lañ ko mhm. mujjee giñ. Mhm. n'est-ce pas pour lekk utoon porte wala pexe bu ñu ko jéemee nasaxal. sunu borom ne leen déedéet du sotti. kon donc nan jàpp ne li ko gunge woon ndax ñoom booy xoo ci seen discours tamit dañ ne li fi amoon du fi amaat. ñoom seen discours dañu woon lu fi amoon du fi amaat ma ne leen li ngeen defoon du ngeen ko defaat buñ defaatoon luñ defaatoon ñoom ñu def lu raw lu ñu defaatoon ñun te nëbbuwun wun dañ koy wax ñëpp di du gis nëbbuwun làquwun donc bi ci jiitu Ousmane Sonko mooy xool fu ko neex mu jaar. Mhm. jërëjëf jërëjëf Ndongo dañuy dabanteeg waxtu bi rek fas yéene tëj waxtaan bi. Mhm. mais fu ñu koy tëjee rek mooy lu jëm si mbirum radiation. Uh-huh. ak immunité parlementaire. Uh-huh. gis nañ ne si magistère Macky Sall. Uh-huh. liñ fi def dindi ay député. seen immunité parlementaire. bëri na lool. Ousmane Sonko Barthélémy Dias Omar Sarr. Euh, Khalifa Sall. ainsi de suite bëri na. ba bu fi mujj ñaar ñu fi doon jël affaire transfert euh, euh, trafic de transport. gis nañ ne tamit ñu ñu raje Uh-huh. si fonction bi publique bi. Uh-huh. bëri na trop. Uh-huh. si magistère Macky Sall. Sonko waa ji sant Sall. ak ñeneen ñu bëri ñoo xam ne dàq nañ leen si fonction publique. radiation yi ak immunité parlementaire yi. nu mu sakkanee si nguuru Macky Sall. loolu ban jàngat nga si am. day jàngat ne nekk ñu ci dëkk bu démocratique bu démocratique day jàngal ne ci dëkk bu nekk dëkk comme ni mu la ko waxoon ci njëlbeen ba rek. dëkk ba nga xamante ni maa moom maa jaay doole lu ma neex laay def nu ma neex laa koy defee maa taïsme par excellence. Mhm. ci dëkk boobu la nekk. Mhm. loolu mooy lan xam nga yéen loolu rek ngeen gis mais am na ñu nekk dans Pastef nekk instant bi ci administration bi. Mhm. def seen concours mérité ko nag ñu jël leen. ñuy dund lu metti ñu leen di bunu xatal fan yi nekk. loolu maa la ko wax tey teew ñu koy muñ ngaanguñu. ah bon tey exemple bu ñu jëlee exemple ki nga xamante ni doon membre fondateur bi nga xamante ni moom moo nekk ci Pastef. mooy ki ma la wax muy monsieur Sène. nekkoon chef de division fi nga xamante ni moom mooy DMC. DMC la nekkoon DMC la nekkoon. Mhm. génne ENA di borom xam-xam yor ko ay at nag dërëm mosu caa manqué ñu xëy mu jël congé tasante campagne 2019 présidentielle 2019 dafa dem ba ci egg joxuñu ko notification joxuñu ko dara téléphone la jot ñu ne ko jëlee nañ la fa. ah bon yemuñu ca jël ko yóbbu ko ofrigo boobu ba léegi mu ngi au frigo amul bureau ñu ko fa mu liggéeyee jël ko yóbbu ko fonction publique réeral dossier am <laughs> déggoo ma ne réeral dossier am. loolu doy na waar de. te pourtant jooy ñu ko fen mu ngi sant yàlla mu ngi muñ mu ngi dund. pourquoi la la def comme faute parce que dafa bokk ci membre fondateur Pastef kese. Mm-hmm. loolu moom mooy loolu mooy crime am mais loolu dafa ñaaw sax te mënuñu ko wax ab reproché benn faute professionnelle. mën ñu ko reprocher lu ñu lu ñu jox comme excuse ne non dañuy xool suñu nu ñuy réménager suñu groupe hmm. nangam loolu la ñuy def loolu la wax comme excuse hmm. mais loolu dafa salte sax n'est-ce pas hmm. te pourtant ñeneen ñu ngi ci Pastef di dund li gën a metti loolu ba ci tey ji ñun ñi ku ci dem déposer fenn bu ñu xamee ne yow mii yaa ngi fenn ka lay jël day reculer daw deuxième du la nangoo pour quoi parce que bu la engagé état commencé koo sàkkal pexe soo commencé commencé entreprendre yor sa propre job état commencé la xeex fatt say bunt parce que en réalité Macky Sall xam lan na bëgg xiif loola toroxal la ba nga ñëw raam ci wetam di ko mar ñun nag suñu borom dañoo defi gor ba pare teral lu duñ neexal kenn duñ jaay kenn ci dëgg la ñuy dox ci dëgg la ñuy wax. Mhm. di wax ne aussi tamit bala ngay tëj moo xëy foofu rek pour nit ñu comprendre dama ne gis nga Adji Sarr. Mhm. ci mbir mii nga xam te ni am na. yii maa leen ko wax comme bu ñu ko reyut di leen ko def loo ñu ñoo la gën a xam ne dossier bi noo lieu la la ñuy wax bu ñu defee non lieu les parents yi nga xam te ni seen i seen doom dañ cee loru woon. bu ñu fat parce que mu dégg nañ moo Mollah Morgun mu ne day pété les plombs des fois. déggoo ma de loolu kay maa la ko xam ne ma ne Adji Sarr bu ñu ko reyut. Mm-hmm. bu ñu ko reyut ndax booy xool ci discours am Adji Sarr dafa valider ticket d'assassinat dafa ne damay tenter des fois xaru. waale bu dee mooy waa Jeune Afrique bañ ko jëlee. bu dee ñu kal ko foofu rek ne dafa doon tànte xaru finalement protéger wuñ ko dee kan moo koy jooy kan moo koy défendre personne kenn kenn nag laa wax kenn du kan moo koy défendre parce que ñi mu àndaloo ñoo koy sàkkal pexe muy benn beneen ba ci topp dofloo ko mu yàppi sagaram te parce que parce que ñoom mun ñu koo continuer di ko défendre éternellement di ko dundal éternellement di ko loger éternellement di ko sécuriser éternellement munut nekk. Hmm. d'abord il faut ñu comprendre loolu. te buñ ko génnee fii yóbbu ko bitim réew tàmmul dund boobu noonu yan compétence la am ba mun faa survivre. Hmm. ok d'abord loolu il faut ñu xam ko kon donc buñ ko dofloowul danañ ko rey beneen ba ci topp dossier bi maa la ko wax. force non lieu lay nekk kenn mun ci dara. mais non lieu boobu noonu bu amee parce que non parce que preuve yëpp loolu la mën a andi non lieu boobu noonu bu amee ci boppam après ñoom li ñu def mooy les familles yi nga xam te ni danoo porte danoo bëgg a porter plainte pour ñu def ko ci seen doom rey te gën gis ñëpp gis na ay nit ñu yu yor ay drapeau ñu jël fetal tiimale la dóor nga yem fa. Mhm. ñëpp di ci teg seen bët dafa benn crime lu taxaw di wane sa naqar yore drapeau ñu dóor la nga sedd ñu dóor la bal nga sedd ñooñ bu ñu porté plainte état day def exprès traîner loo dossier bi fexe dugg ci yenn kër borom borom borom borom borom tur yi pour que ñu mën a ñaan famille yooyu ñu bàyyi mu sedd. mais problème bi mooy même famille yi suñu bàyyi mu sedd ñun ñoo doon bàyyi mu sedd tôt ou tard lii du rest impuni di waxte aussi tamit ñi ci blessé woon wala lu ci lor woon bari na am ñi nga xam ne ni jamono jii may wax ak yow ñu ñoo doon logé. Hmm. seen faj metti lool lool lool lool lool seen dund metti lool lool lool ku leen ko teg état est-ce que ñooñu ay sénégalais est-ce que ñooñu mérité wuñ état indemniser leen est que ñooñu mérité wuñ leen état jëleen en charge ñan leen blessé ay nervi yi nga xam te ni état moo protégé nervi yooyu noonu loolu dafa ñaaw dafa salte mm-hmm. Macky Sall dafa ko doomam mm-hmm. def ko keneen ay sénégalais yu am droit génn marche ne d'accorduñ ci lii la mu yónni ay nervi yi ak ñoñam ñu jàpp boo yooy gaañ leen ñi ñu damm leen ñi ñu yàq leen ba tax tey jii boo yooyu noonu seen faj metti lool dafa doy war sax. Mhm. jërëjëf Ndongo mbégte la woon ñu dalal la ci ASID TV la chaîne des patriotes ànd koog waa KS TV. Mhm. Euh, di sàkku sa kàddu gu mujj kàddu tàkkatoo ñu yemale ko fi ba beneen xam naa danañ la dalalaat incha allah ndax yow mhm. suñu waxtaan dina gën a yaatu. en dama lay wax comme ni ma la waxoon ci njëlbeen ba rek mooy di la remercier ci invitation bi d'abord. Mhm. mënuma la bañal dara. Mhm. mais man souvent samay wax damay bëgg mu yaatu lool. ndeysaan moo tax d'habitude damay rester ci samay plateforme mhm. di ci def samay live tranquillement sama dernier mot bu may wax Macky Sall mooy. bu dee bëgg na am mujj gu rafet. na teggi concom bu dee bëgg na mujj am mujj gu rafet. na nangu lu yàlla dogal. troisième mandat moom bu mu ko xalaat te complot calcul politique yee mu teg ko fële du ci mës a génn ci loolu nan bàyyi justice def liggéeyam tranquillement teg ko ci yoon na yeewi ñu mu tënk parce que kat gis nañ ne moom depuis mun ne Sénégal ba léegi gis ñu ci moom respect bu mu jox mën na tiwite pour wax Macron mu feebar mu wér ak jàmm waaye mënu tiwite pour wax 800 jeunes yi nga xam lab nañ ci géej gi. Mm-hmm. mën na tiwite di masta waa France ci lu leen daal wala di ànd ak waa Charlie Hebdo di manifester waaye munut doxantu wala boog seeti ñi nga xam dañoo blessé woon ci événement yi wala boog parce que fi mu ñëkk a jàkkee ñàkkee jox cër moo ne mooy lan mooy daf ne Sénégal léegi ku fi manifester takk lu rouge man du ma gis lu rouge ay kàddoom la kon kooku joxunu cër mhm. donc euh, mooy sama kàddu gu mujj mooy Macky Sall na jox cër sénégalais yi nanu respecté na xam ne ñu ñoo ko fal jox ko courant jox ko fayal ko ndox fayal ko courant jox ko dëkkuwaay jox oto jox ko sécurité te dañ ko ko aal kese pour benn durée dafiy jóge lu fi waay mën a def ci moom te tegoo ko ci yoon na la wóor na bés dana ñëw nga fay ko na la wóor na bés dana ñëw nga fay ko te boobaa kenn du dox suñu diggante ak lu dul yoon bu dee nag defoon def na lu tegg yoon yoon dina tegu ci kaw sa kaw ba mat sëkk barke. Mm-hmm. loolu mooy sama kàdd mujj. Mm-hmm. di wax Macky Sall force bi intimidation yi na ko ba mënuñoo intimider mënuñoo forcer mënuñoo yëngal suñu bët sax rafut li ñuy def tey lañ ci gën a engagé wu te ñàkk yoon boobu mu bëgg a def Sénégal du fi mës a am fu mu yaakaar rek ñun ñu yaakaar loo raw mooy suñu borom ñun lañu yaakaar loolu mooy sama kàddu gu mujj. jërëjëf Ndongo Diop kon bokk internet yi ñu doxal leen dox daje ba beneen yoon ak suñu beneen gan. ASID TV, la chaîne des patriotes.